ma ngay dem ay mbokk ma sas ñoo ngi koy yee. te yàlla rek tax jëla sa temps baay barki sëñ Fallou yot ko rek soo ko yootee jàpp ko mooy loolu amateur la bis bi laaj waaw tey rek tey rek tey rek waaw tey rek bilaahi li ak laa ñoo ànd ko waaw bilaahi walaahi waaw am na lu ñu koy jox moom ñang mbaalo <laughs> ndeysaan nee na bis bi tey rek la laaj booy fay am na lu mu koy laalale cey lamb mbër daal bu yàggee sëriñ tar yaax lay doon waage <laughs> tey rek sëriñ lay doon ndeysaan xolal loolu ndeysaan cey iboo <laughs> cey lii tey Ibou moom it kenn du moom. mu feex rek aafiya ah, rek. doom nday yaa ngi tàggatoo <laughs> tàggatoo bu mujj dem ci digg géew bi lii moo gën a garaaw ci làmb mbër mu génn ci cimikaayam di tàggoo ndeysaan ndeysaan njang mbaalo ngay dugg si cey ñang ko ak ñang mbaalo ñang mbaalo moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu ñuul li guy manko ngemb lu ruus jàkkaarloog yow ndeysaan ñang mbaalo guy manko ndeysaan xeex na dóor na Guy Manko dóor na Niang Ballo na ko dóor na ko dóor na ko quatre appuis wala déet dóor na ko ma ngay dóor Niang Ballo ngay dóor ma ngay dóor ci suuf Niang Ballo ngay dóor Niang Ballo ngay dóor ndeysaan Niang Ballo <laughs> jeexagul ñang lu mu nar ñaar topp na xeex bi daa bëgg a xeex moom ñang baala daa bëgg xeex ñang moytul guy ñang koo jàpp combat xale la ñaari xale ñang baala guy manko ndaysaan ñang baala guy manko ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo fàqat na ko guy manko ñang mbaalo ñang mbaalo ngay bëre ñang attention mën nga am surprise bu rëy ci guy manko ndax naanaan la daa mën a bëre te ni nga koy toppee nii mën ngaa vidéo ci làmb ji guy manko ñang mbaalo ndaysaan kii nekk écurie Bathie Seras kii nekk écurie Dóor Dóoraat Bathie Seras Zoss la moom la xale yi dekkelaat indiwaat ko ci làmb ji guy manko ñang guy manko ñang mbaalo arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na ndaysaan ña nga ca ndaysaan arbi bi sif la waan na ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo féete la ginnaaw guy manko nga jàkkaar lool ñang daa bëgg a guy manko da ko bëgg a jàpp guy manko daw na jàpp guy manko ñang mbaalo ndaysaan ñu ngi noonu cey lamb jàpp na guy manko ndengeñ bi baax na ñang mbaalo da ko bëgg mbot wala déet am na luy xeeñ guy manko lu mu bëgg ma ngay gën a seere ñang mbaalo guy manko ngay yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay njëkkati guy yëkkati na ñang mbaalo daan na ñang mbaalo daan na guy manko ñang mbaalo daan na guy ñanko mbaalo coach bi ma ngay xeex ma ngay xeex ma ngay xeex ma ngay la la dama lu muy dindi si géew lu may dindi ma àq seef lamb moo demee nii baal leen ma àq seef cey ñang